Farba Ngom moo jëli Moussa Cissé Moussa Sy xaaju guddi la ko fekk këram indi ko këram bi mu ko indee këram Farba Ngom mu ngi dóor ay science ki nga xam ne mooy Moussa Sy te goo fay yàq ko lu mel na xamee léegi na ñu xool Moussa Sy ak Farba Ngom lu ñu waxtaanee ba juboo ko avant ñu dem ci président de la République déglu leen Moussa Sy ma ngi koy Farba nga koy tegtal ma nga ñëw kër Farba la ñuy waxtaanee ñu xool ndax waxtaan bi dina mën a sotti ak yan condition la ñuy teg. allo Moussa foo toll boo ro robee rond bu TFM bi dangay jubal waaw yaa ngi foofu dangay jubal ba ci buntu kër nga jàdd gauche jàdd droite waaw kon léegi nga egsi ka yow dugg nga laajte kër Farba kër Farba Seeri Jaari ak Aji Mbay d'accord yaa egsi nga dugal dugal kar yi dugal ok egsi nga bandiraɓe si si si si si si gam si si si si jarama mbadda ar ar togol togol cogol moussa nga baalmo de an ko min ko halpular neɗɗo ko bandum yo suma mbokk nga boobu léegi soo gisee waxuma ak yow lii moo tax parce que bugguma di dugg ci loo xam ne leerul président moo la soxla Moussa président benn moo am Sénégal Macky Sall moo la soxla te lii mu ma wax bu fekkee ne nangu nga ko eh, billaay doo doo ko rëccu de dama bëgg nga bàyyi kalifa Sall bi nga ñëw fekk si président Macky. ngay lan. nga ne. yow jotoon nga fi dégg li ma fi jotoon a wax président. waaye loolu nga wax loolu dëgg waaye loolu wax politique yi loolu amul problème booy Moussa Moussa. Farba am na yoo xamante ni nii man neewuma si. président am na yoo xam ne dama ko jotoon génnee wax ko ko te man tamit. Eh, booy. gor laa man gor laa du ma ko. ñëpp ay gor nañu. Moussa ay eh, eh, as déglu fii affaire politique affaire gor da nga koy sumi teg na la. politique boo ko xaasee fa def affaire ngor doo ko wax booy man kam na li ma lay wax ko alpulaar am ko alpulaar Moussa Paye yi affaire gor président léew ko Moussa yow président loo ko wax fàtte na ko moom loolu moo tax mënoo noo noo non loolu moom mënu ma ñëw parce que yow jot nga fi dégg yëpp yi ma ko wax yoo xam ne nii dama ko. xeer yi nga mais bu ko dal. rom bu ko na ko kon. parce que am na ñu ne si ginnaaw bu ma ko sànnee rek bu ko dalul dal na ñeneen ñi. am na yoo xamante ni nii moom. Moussa Moussa accu an ko halpulaar mi ko halpulaar ne du ko bandum lii lay wax Moussa bu dëgër bopp. non dëgër moom bopp yow xam nga déglu ma rek dama lay ñaan xam nga yow jooy ma jox la Souleymane Téere Njaay gi nii lu wax moo gën a garaw wax nga dëgg wax nga dëgg kon kon Souleymane Gueye nee man bu fekkee dama nar a dem transima nañu ma tiire pistolet ma tee wax nga dëgg yow ah, da nga tag mu dee da dafa tag mu ñu téere ko mu dee eh, eh. ana ana Papa Samba bu loolu la waxul président Macky Sall tant que wax na président Macky Sall lu ko nekk lan wax ci rek dara tey mu ngi koy kool président di ko kool waaw kaay ma jox la benn bu gën a dee nag ban ana ñoom Awa Ndiaye kuddu hmm. kolal ana Sada Ndiaye Sada Ndiaye Haalpulaar yow Haalpulaar xam nga ko Tukulóor. ñu si Sada Ndiaye lu mu waxul Macky Sall fii amul. ana ñu a da ngay yéex a yéeg si. léegi a la bëgg xamal mooy dangay am fulla ak fayda. mais c'est que man lenn mooy sama problème gars yi après li ñuy wax nii. ñooñu ñooñu toppatoo gars ah. bindal bindal fii merde bindal merde bindal bindal kolal wax waxet Abdoulaye Wade moo ko njëkk def te mag la. wax nga dëgg nga la jur sa maam la. wax nga dëgg comme que moom mooy ponkal moo njëkk wax waxet kale bu ndaw bu waxee wax du ko dellu dara. du am problème maa la garanti boobu. Fall Moussa nangul man maa la débosé. Ah. bu nangu du taxaw wax ak kenn affaire politique bul taxaw bul tontu kenn. du ma tontu bu journaliste yëgee bul waxee bul wax dara. yow Macky nga amal affaire ak man. dégg bu jeexee jeex na min ko xalpulaar ne du ko ban bul am dara doo tiit ci président chaque taam nañ ko fi mais nag rus naa loo président de Ablaye Wade wax na ko fi wax bu ñaaw ku nekk fi da ngay wax ku nekk da ngay wax ku eh, ma toog la benn xanaa poofu moo gën a dee ti yow li ngay def nii hmm. loo wax lu ñaaw ah. am na ko gën a wax bu ñaaw boobu te teekam mu ngi jàkkaarloog Macky Sall te Macky Sall faa ñëw loolu li jëntiwul loolu ginnaaw bi met la ci def jógal dem ci Macky non rus naa jàkkaarloog Macky non bul am problème bu rus jàkkaarloog moom loolu amul problème xoolal lu mu booy man am naa am naa kersa tamit jàkkaarloog Macky wax ko li ma koy wax ba pare nii mooy loolu al Macky <laughs> Macky naa jën de ponkulum jën nangu na de moom sa kersa daal lay kala mu ñëw man la maa wax ak moom nga d'accord booy santal yàlla ah, kola nee na lépp tu ma ko wax nañ dem foofu ah. nee yow yow li nga wax ah. loo ko musu wax hmm. moo ko gën a neex ko wax <laughs> kon bàyyi na mu sedd xam nga Souleymane Nder Ndiaye la la wax nee na Macky Sall tekku dara <coughs> nee na Macky du dara fan la mujjee fan la mujjee da ko def PCA nekk sama ginnaaw bu bu la gàcce rey de lii du dara. merde bi bu la gàcce rey politique nii la dangay wax rek après dara. merde bi dama ko ah. dara. fii ñu la mag wax nañ fi lu gën a ñaaw te dara fekku leen ci. politique ñoo ànd lii ak politique ñoo ànd. boo def doo gëm yàlla rek booy kaay kaay.